mbokk ñoo del seet rek comme niñ ko baax di defe saa su ne waxtu wu ne bu ñu déggee wala ñu gis dal ci yoon ci suñu émission yi ni amal saa su ne waxtu ne ci Baol Média mbokk yi tey nag ñu am tuuti lu ñu bëgg leeral ba nit ñi yeewu ginnaaw bi ñu seetaanee image ba la ñu génnoon fële ca gaar ba mu fii ci biir Touba lenn na ci ay ndaw yoo xam ni passé gun dix-huit ans quinze ans ñu génne leen ñii di gees ñii di tox ñii di nangam ñii di nangam ñu ni fan la amee ñu ni Touba mbokk yi loolu képp ku ci bayul xel ku ci bayul xel am na la dal rawat na nag ku nekk ab jullit rawat na nga di am murit rawat na nga dëkk Touba man nag lu lu laal Touba laa amul sago damay faral di wax ni sama yitte yëpp lu laal yoon wi lu laal dëkk bi ak lu laal seexul xadim ci aw ma ci sago aw ma ci misaal soxlawu ma ku ma ci dimbali lam arju sadiqan wala ak fadwa lu ma ci gis te mooy lu bon danaa ko dama lu ma ci gis mooy lu baax danaa félicité ko def mais xam ngeen ni jamono yi dañoo xawoon a xat amuñu temps moo tax waaye image yooyu xam ngeen ni bu mu wéree àdduna ko gis ak Tuubaa li ci Seexul Xadiim wax boolu yëree xasidaam googu ñu wax Matlabul Fawzayni te lu mu ci ñaan ci ñaan rek yàlla may na ko muy lu dikkagul ak lu dikkagul lu teg suñ bët ak lu mu tegagul suñu bët waa lu mu yàlla may na ko ñu gis ay gone yu ndaw ñu ne lii fa la amee ñu ne biir Touba moo ne booba ba léegi maa ngi déglu ak mais gis naa waa Touba ci kanam euh, sëñ Habibou yàlla ko yàlla yokk wér mu dem fa ak ñi mu àndal ñu defaat fa ay làmp gën a leeral foofa mais déggaatuma ñeneen ñu àdd ci lii. te ñëpp dañ koo su suñuy loxo te suñuy doom suñuy jarbaat suñuy sët ñoom doo nga fa nekk pourquoi mbokk yi pourquoi mbokk yi ana tuubaa gi sëñ Touba doon wax ana ndaw yi sëñ Touba soxla woon kenn ku ci amul responsabilité amut kenn laa wax nag ku ci amul responsabilité amut ndax ay bàyyi liñ fa war a jële ay maga liñ fa war a jële ay ndijaay liñ fa war a jële ay maama liñ fa war a jële du ñeneen buñ leen seetaane nag donte leeral nañ foofu ba mu leer même gone yi li ne ci ñoom ma ngi ci ñoom mbokk yi yaa ayyuha llazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi ni nee ngeen gëm ngeen yàlla rikk waay rikk waay fegeel leen ba fexeel seen bopp sawara fegeel seenu njaboot sawara bu nee njaboot nag kenn disut képp ku bokk ci yaw laal ci yow deret wala ngir bokk pas-pasu diine wala ngir bokk pas-pasu taalibe kooku sa mbokk la boo ko waree xetti te xet di woo ko ëllëg yàlla di rëqandik ak koo mën a doon te ñi aaji na noo xettali man raa minkum munkaran fal yuxayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi dalika adaaful iman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ko gis yéen lu bon lu ñaaw lu nu sib lu ñu war a dénoncé nee na na ko gaaw dénoncé ci loxoom dindi ko mu deñ loolu nag fii ci Touba ñu woo ñi nga xam ne tey ñoom la seen loxo gën a jot suñu ginnaaw ñu nekk ay autorité ci biir dëkk bi ñoo ko man wala xalifa général de Mouride ak ñi koy jàppale ñoo ko man mu ñu danoo sa lool mu dañ su loolu amut nee li ngeen wax lool seen làmmañ ba ñëpp dégg ko mbel mbeli ko mel ni ay saar-saar wax ko ca kaw ñëpp dégg ko nee na su loolu su ngeen mënu loolu nag ngeen bañ ko seen xol mu ne daalik adaful imaam ngëm gi gën a lompoñ ngëm gi gën a bon ma ngi noonu gi gën a néew doole mooy bañ soxol ñun dañoo yaakaar ni actuel bi moom mooy ñëw naa sëñ bi aslamtu si pare ci déedéet da ngay appliquer yi la lislam teg da nga koy appliquer doxal ko droit yi la seexul xadim teg te gëmoo ku dul moom wala man boog gëmoo ku dul moom yaakaar ba ku dul moom lu mel noonu da nga koy appliquer dox ci mais mbokk yi mbir mi du du ñëw rek ni jébbal naa sëñ bi sama bopp pare ci ëllëg kenn ku ne sunu borom di la laaj nan nga doon doxale sa àddina nan nga doon doxale sa njaboot nan nga doon doxale ci fa nga dëkkoon mbokk yi nañu delluwaat ci lislaam delluwaat ci ormay Touba def naa ci émission yu bari yaakaar def naa ci war ñeenti émission ñeenti émission def naa ko ci ormay dëkk bi ormay Touba dépassé na ñuy xool benn image naa ay ndaw ñoo fay def lii loolu mbokk yi ñun ñëpp ko war a bu ñu yem ci ñaawlu bi ñen ko war a danoo sa laa wax ma ñaawlu mbokk yi nañu xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la yéen nga xam ni yéenay jur ay doom yàlla dénk leen ko mayu leen ko de sunu borom bi woo xam naa dañuy wawa say naa dañoo dénk doomu aadama ñaari waajuram kenn ku nekk ci ñun am nga ñaari waajur yàlla danaa dénk sa ñaari waajur yooyu mayu la ko ki ñu la rek ndénkaan na nga koy li ñu yàlla dénk su fekkee sàmmul ko yàlla di rëq sa ndigg ma nga commencé ca kaw nag di wàcc di wàcc ba ki ci gën nekk ki ci gën a néew doole ñëpp ñoo war a góorgóorlu ci lii xew Touba ñu danoose ko mu deñ ak nu ko mën a danoose nag ku ci am ab jarbaat te war koo mën a jàppale taxawu ko ci ci ci ci àddina ba mën a taxaw bu am mën a liggéey jariñ réewam jariñ askanam defoo ko te nga am alal di ko pasa pasaree yàlla di rëq sa ndigg yow moomee ku ci am doom war koo jàppale jëppalewoo ko ci àddina ba mu war a mën a la mu war a liggéey ci àddina mm. war cee taxaw njabootam war a nuur ci lislaam dundal ko jël say alal di ko pasar pasaree yow moom def loolu yàlla di ak foo mën a bokk ak noo mën a sant ak foo a dëkk laax nag itam war koo jàppale war koo taxaw taxaw ko ci taxaw ko ci àddina ba li mu war a liggéey lislaam mu liggéey ko li mu war a liggéey ci diine ak war a yor ëllëg mu yor leen dem ba taxaw kër yor kër yor njaboot yor ay soxna doom nga xam ne boo ko taxawoon man ko nga lànk defoo ko jël sa alal di ko pasa pasa ci àll bi yàlla di rëq sa ndigg sa loolee ak loo mën di joxe ci addiya ak loo mën di nangam nangam sa doom ji wala sa sët bii wala sa jarba bii nga toppatoo woon ko orienté ko orientation bu jub xeetli ko jox ko ci sa alal orienté ko mu liggéey mën a xeetli ay nit moom itam mën a dund lislaam gëm lislaam loolu moo gën fuuf di pasar pasaree sa alal ci àllum neen di pasar pasaree sa alal ci nangam ak nangam ak nangam benn njariñ orienté benn nit moo gën mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu fàtte xasatu xaybar bi ñu xeexee xeex ubbi tata ji mën ñëw fexe ba ubbi tata ji yonent bi lan la wax saxaaba yi su ma xëyee dinaa jox raayu koo xam ne yàllaa ko yonentam gërëm nañ ko saxaaba yi kenn ku def nelawoo bëgg boo xëyee yonent bi tudd sa tur ni yow laa jox raayu bu ñu xëyee ñoom ñëpp di taxaw yaakaar ne kenn ku ne yaakaar yow bi woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayna ali ibn abi talib allahu akbar ali daal di ñëw fekk dafa xawa a wànneen yonent bi daal di am wax ci bët daal di ko raay bët daal di yow laa def ngay jiital xare bi ali ne dinaa jël sama jaasi sadd ko am yéefar teqale diggante baataam ak boppam teqale diggante ay cëram yëpp fejar ko teg mene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wuyu ko mu ne ko la an yahdiyaka allahu ah rajulan wahidan xayrun laka min amrin am yàlla jubal kenn nit ci yow maa nga fexe ba gindi benn nit orienté benn nit mu jub dugg ci diine dugg ci lislaam mën a liggéeyal lislaam waaye liggéeyal ba am ci àddina ba mën a yarum njaboot orienté leen mu ne loolu moo gën fuuf jur gu xong cooy nga dugalee ci lislaam loolu mooy lan mbokk yi mooy suñu jarbaat yee suñu doom yee suñu sët yee nekk fële ci gaar ba ñu fexe woon andi leen orienté leen boole leen suñu bopp ban bàyyi yée ñuy def ndax ëllëg ñooy société bi ñoo ko yore mbokki yi loolu moo gën fuuf alal ju weex tàll ñu ko dugal ci yoonu murid alal ju weex tàll ñu ko dugal ci saam orienté nit ñooñu ba njub ba pare ñu doog def loolu moo gën fuuf buñ leen ko waxee moo gën suñu ko waxul moo gën te nañoo xam ne ndaw ñi ñett yi dañ ko am fi laay tëjee incha allah rabbi ndaw ñi ñooy sarotul bilaat ñooy koomum réew mi ëllëg réew xam ne ay ndawam jubul jëru nga ci yaakaar mu koom du dox amalul mustaqbil ñooy sunu mébét mi ñu yaakaar ëllëg ñoom ndaw ñu ëllëg kon dañ leen di orienté waaye mbokk yi ñooy rijaalul xaddi góor yi ëllëg ñooy ndaw ñi ay ndaw nag boo leen yaakaaree da nga leen di éduqué jubal leen ci lislaam nappatal leen ci lislaam rawat na bu ne ay murid nga teg leen ci yoon siraatal mustaqiim yoon bi Serigne Touba doon wootee nga xam ni moom ko danoon rajaa'u jannatin bilaa taa'ati fi sunnatil maahi quruurun yaati yaakaar àjjana te tëppoo yàlla na nga ko war a toppee nee na ay ndax dong la ak i waraata képp man seen xam tuguma leen foofu waaye nag dafaa te ni da leen leer bu leen gis rek lépp mu roo ngeen teg ko miskit déedéet an ma bari lu mu def ni bu leen gis lépp lu weex ngeen teg ko lu baax ak lu rafet ndax kët seesu duus ngeen baal ma ci waxin wi noonu la ko bindee moom sees bi dafa weex tàll te taxul mu ñu taamu ko li bëgg wax mooy nañuy setantal te am expérience maam Thierno Birahim Fall Ndaama Daaru moo dafa waxam lan moo di taalibe maa ngi ni ko xanaa lu la sa sëriñ digal nga def ko mu ni déedéet maam Thierno wax ne lu la sa sëriñ digal tam dëppoog la la yàlla digal nga def ko daal lu mu la te dëppoo la la yàlla digal nga ne ko fa ñëkk def la la yàlla daal di indi xadis bi yonent bi sallallahu waxam ni la bind bind ko mbokk yi nañu bàyyi wax xel nekk nañu xam ne ay taalibe lañ war a doon doon ay julit xàqan nekk ay murit saadix gëm sëriñ Tuubaa di ko liggéeyal ci diine di ko liggéeyal ci saab bu ëllëgee ñu mën koo gis lii rek laa amoon lu may leeral amaat na yeneen yu ma war a waxtaan incha allah ci yeneen émission bu soobee ki maye ci ormay Tuubaa ak yeneen yi xew ci réew mi bu soobee yàlla jërë ngeen jëf di bal ñëpp àq di bal ñëpp àq in uriidu illa islaaha ma stata'tu wa ma tawfiq illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh